wàllu bee ba tey ñu ngi ci Diourbel ak Fatick Diourbel Fatick ñu ngi noonu ci compétition bi Diourbel Fatick ñu ngi ci ndeysaan ñu ngi noonu fàqat na ko Diourbel ak Fatick Ndeysaan ñu ngi noonu. Tony Junior ma ngay jooy. Ndeysaan ñu ngi noonu. Ndeysaan ñu ngi noonu. ba tey ñu ngi ci diggante Diourbel ak Fatick ndeysaan ñu ngi nooñu ci demi-finale yi ñoom ak Fatick ndeysaan Diourbel ak Fatick Diourbel ak Fatick laal sport daa war boole Dakar bi foo waaye gis naa xale bi nga xamante ni ndeysaan ñu ngi laale seeni biir.

ci image parce que làmb dafa am benn xar kanam boo xamante ne dañ leen koo teg yu mel ni saa yoo ko gisee rek doo ko mën a continuer waaye ba tey ñu ngi ci combat bi diggante Fatick ak Diourbel ñu ngi noonu Diourbel moo ngemboo rouge ceinture rouge Diourbel jàpp na wër na ndomba wala déet lu xew Diourbel daan na Fatick wala déet Diourbel daan na Diourbel daan na Fatick Diourbel daan a ngi noonu di gis ci komba bi doxoon ci diggante Diourbel ak Fatick ah, recours dafa dugg léegi dañuy déglu verdict bi fan la jóge hmm, hmm. gaynde gaynde Fama ak Abdourahmane Assef alors commission bi bi ñu demee ni nañu image bi mais liñ ci mooy dañuy confirmer victoire du ga ga. ayca ñoo ko déggandoo El Hadj ndeysaan dégg ngeen li nga xamante ni moom la Jurbel am muy ndam bi euh, dellu siwaat na ci loxoy Jurbel kon 2-1 la Jurbel moo am 2 Fatick am 1. chef de daa bu Mbour daaw jeej waa Fatick dañ maa wor waaw dañ maa wor ma wor daaw jeej moo tax moo tax ah non ñoom dañ ma ne dañ laa sélectionné defi doo def éliminatoire ma ñëw foofu ndeketewoo dañ maa boole koo xam ne Omar Diouane la mu def un mois yu baax yoo xamante ne mu ngi may préparé wu moo tax affaire bi métti ma ren gi dañ ma woo waa Fatick dañ maa woo man leen ren moom affaire chef d'état bi moom pare ma ci ndeket yow eh, bu ma wax ak ma wax ak ñi waa Diourbel waaw. waa ji dafa ŋaam rek keroog Gambie fee fa laa ko daan final mu nekk fii di ŋaam di naan di ma naan doo doo fan la ma daan. ci maa ko mën. yow tey mercenaire nga Diourbel. waaw yow waaw mercenaire la c'est la première fois may may teew drapeau chef de l'État. jaajëf waa Diourbel eh, waa dañ maa wër. moo tax ma woon le li ma mën. man du ma wax kat jëf kat laa. waa Dieng Gagny Fama.